lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu beew waayi nga te waayi nga te foro keluma bi da sellal yow yàlla jox barke soxna jaara bu defan suq ak cuune duñu wan ki ñuulu dolle da xëju cim nen mosula julli te jàppul mosula julli te wildul loola kay sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxna te njaayi mbokkam taalan ko maaram lalaalal sëñ jaabaan sëñ jaabaan rekki ban na jaamam jam sayla jam baatin bambal kami kaadam cog ndeegola jébbal taalan ko dem rootil donga yi xayu toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daarootal seen jeneer ba moo niital sawru faal moo jëfal ba muy leeral moo taxi dëndam yaa nguy jib te yëpp jëf jël bamba mooy néeg ba Cheikh Ibra di lamp bay leeral ab la jee may Maamoor Jaara Maamoor Jaara ab la jaayi bamba yéena moo pëg pay jëf moo waral moom ab jullit muy jëf yéena waral kër buuram yéefari la muy jëf yéene waral kerek dooram moo a julit war nay jëf te boole koog yéene loola mooy njërma dee leen jëf te boole koog yéene muy doo jëkk a karaam ni sol kaay leenam kaw soo la daanaane moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan ta kaw soo ak leer ya moo taxoon musul leenam lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu rànkay ngeniil ndax ngoola almu di alal saamaan muy wool ay jabar ak naa jooju doom dem waar tànk doom demal banu fi soxna saa doog waar soxna jaara yoom nga te yaa gore maam soxna ba sunu maam ji yor borom ngeniil li te fii ñul jafe cib jaam ma fay dox di waxtaani soxna jaara mos di a seetaan mos ba ñettaani moo taraxal saytaani mos a dox caag raw sax bay leen ta maasam ci la baa di waxtaanam loolu moo di ban xaasam soxna jaara moo ba mi ngiej mu naa walwal dégg too bi kenn ku mar mbaa ku gàntu day bañ a wal waaye wal mi dem na fu ne ngan di tee ba day gën na leen ña nangoog ña gàntu du tee fépp fépp la yi dara leen ku yabu teex ku yabu bañ bàq baa ngi kenn terewul ñi gëm dañuy teex ndax ngan di tee bu faw mu bal dégg ngeen wolof new daay tàkk-tàkk bàyyi kuréel bamba moo di tee ba muy tax daay di tàkk bàyyi kuréel dogan tee ba daay di sax bay jëfal di bàyyi kuréel kuréel doon te mooy ñuy ñax daay du tàkk def ko kuréel ñax gën càll ba sax gaay di tàkk def ko kuréel kuréel amoon ba ti xol doo ne maa di kuréel kuréel xamoon la doon kon mu yuux naa wererer waaye xam-xam jafe na ndax wala bëtam dafa jër soxna jaara mi war naa tax jigéen dafa xaadam moom ki nangu woon xaadam te si kël nu kël maaram soxna jaara mi war naa tax jigéen nangul sëriñam boole cem du kat ati xel jureemu di di yaaram soo jaaree mi war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox eh? jigéen mu di yaaram soo jaaree mi li am sax jigéen mënu waaye nangu ak yéene daanu delli pay li kuy jëf kër ba mu maa moor ba fanaani caa tawte moo di sàkketi weñ yi war na kànkaar saate turux yam defal maa moor moo waral tabax jiital ak ba san bu ñuy tooyal kaa ba gaa nga tuuba yam defal maa moor moo walte ba giital ak batan bi ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tey njàppam laa waral njàngay léegi